seen sant di gërëm ci seen teewaay man Abdoulaye njaay maay président association benn kër bi nga xam ni bañ ko sos léegi mat na juróom-ñetti at ñu ngi si juróom-ñetteelu atam tey nag bés bi nga xam ni bésu daje la weccoonte xalaat sottante xalaat ñaanalante suñu biir di préparer pour suba bi nga xam ni ci su la wàcceel ñaanal suñuy waajur ak képp am di jàmm. Euh, dañ ko créé woon nag maanaam sos ko pour di fàttaliku suñu ay way daw suñu waajur yi nga xam nii ñoo ñu meññ yar ñu teg ñu ci yoon surtout siratal mustaqim suñu borom bi jël leen ñu leen ñu leen di ñaanal suñu borom bi njëggal ren nag mooy juróom-ñe juróom-ñetteeli at bi lii nag dafa di pré-organisation la dañuy def. la veille buñ ne ëllëg la dañuy daje ndogu waxtaan seet li nga xam ne lii moo nar a gàllankoor mbir yi seet li ci baax li ci bon ñu dindi ko di woo nag nit ñi jullit yëpp woo nañ ci ñëpp bàyyiwuñ kenn. benn kër daal association la bu ñu def boo xam ne waa ci rue lañ ko defee ndax ñi fi nekk ñépp benn lañ nekk benn moo waral ñu ne benn kër. suñu waajur yi nga xam ne nag dañu génn àddina ñoom la ñuy ñaanal bés bu nekk chaque année moo waral tey jii ñuy woote bii mooy huitième édition bi ndogu bi chaque année dañ koy def dañ koy def am na boo xam ne xale yi ñoo koy def ci mbedd mi pour ñi nga xam ne dañuy romb di dem ñu jox leen ndogu def ndogu tamit ci biir kër Cheikh Mbacke gi lañ koy defee chaque année ñun ñëpp ci koñ bi ñu fi dëkk ñun ñëpp fi la ñuy ndogoo ak keneen ku dox ba yem ci rek ndogu bi daal pour ñëpp la association la boo xam ne pour ndimbal dañuy dimbalante suñu biir bu lu nit xewle muy ja muy bànneex di naqar lu ci mun a doon rek dañ la fay fekk ak suñu ndimbal boole ko dañuy def euh, social di dimbale nit ñi nga xam ne dañu feebar nekk seen kër yi ñu leen fay fekk di leen dimbale di dimbale jàppale néew si doole yi nga xam ne mënuñoo ñaan mënuñoo def dara lu dul te dañ leen war a dimbale ñu fekk leen fa jox leen suñu ndimbal. loolu moom bari na luñ ko def loolu moom ci lañ dëkk ñiñ ko defal bari na mais dañ koy def ci sutura nag buñ ko defee daal kenn du ko yëg dañuy dem defal la ko dellu si waat soo ko waxulee kenn du ko yëg conference bi moom wax dëgg neex yàlla ni ñu ko daan defee rek lañ koy defee waat. ñu ngi koy waajal bu baax di ci woo ñëpp nag bëgg waa benn kër ak waa Médina yëpp ñu teew ci suñu xëyee dinañ wàcce kaamir jigéen ñëpp dinañ teew am na ñu bari ñoo xam ne invité nañ leen te dañuy defaraale ay beñeek lépp bu ñu wàccee kaamir ba pare moom lañuy ñuy dimbale ko jox nit ñi pour ñu ndogoo ko tamit. ni ko suñu présidente waxee rek.

présidente bi mooy madame Fatou Fall Saré am na premier vice présidente muy Aïda Sow Diop deuxième vice présidente muy euh, Tabara Ndiaye waaw am na tam euh, Ndeye Fatou Ndoye ak Khadija Samba mooy soxna kii Cheikh Mbacké Samba ñoom ñoo yore euh, ñooy coordonnatrice bu génération 33 génération 33 benn kuréel la boo xamee ne ay ñu dëkkoon fii ñu dëkkoon fii rue 33 te nekkatuñ fi mu nekk ñaari bànqaas bànqaas bu dëkk bi ñu ngi bitam réew ñeneen ñi ngi fii mais dëkkatuñ fi daal mais ñu ngi fii au Sénégal. ku ci bëgg a bon da ngay dem xool sañu président kii euh, kii El Hadj Abdoulaye Ndiaye parce que amee na euh, kii bi kaye euh, bi tënk nañu yëpp ni association bi di demee dina la wax ñi nga xam ne moom la ñuy doxe ah waaw parce que am na ñu nga xam ne sañu démarche boo xamee def nañ kii nañ ko. parce que l'association c'est reconnu c'est reconnu et puis c'est apolitique. L'association, bi mais c'est à but euh, donc euh, mais social à social donc dans un premier temps donc comme nous avons ko c'était au niveau de la rue donc 33 donc nous nous concentrons euh, mais essentiellement donc pour aider les démunis donc on a des gens qui sont dans le quartier qui nous nañu ou wala dans jot jardin. voilà nous xool le peu que nous pouvons donc nous sommes leen surtout moom mooy comme ni ko femmes yi donc c'est sutura. donc mais association bi comme nous ñu ko donc c'est une association qui xam formalisée. mais avons formalisé ñu yore ça fait huit ans donc mais ñu nekk si c'est bien structuré euh, allant du président donc ba nous mu donc si le secrétaire général vice-président le trésorier mais ainsi de comme toute association mu structuré donc nous sommes structuré donc il y a des chartes qui sont ne dafa nekk si biir ay statuts ak règlements yoo xam donc képp kuy ñëw donc da nga siy tënku voilà da ngay ñëw nga tënku donc si charte yooyu adressé avec une carte de membre voilà donc c'est ça bon dans un premier temps nag mais c'était limité donc si euh, donc si 33 bi rek mais dañ dem nag bon ba si biir il y a des gens qui ont vu que action yu def donc ce sont des actions yoo xam bon qui doit s'élargir bon au-delà de la rue 33 et puis bon ba ñu toogee réunion aussi ne xam nañu aussi loolu mooy dëgg donc euh, c'est vrai que dans un premier temps mooy perspective c'était ñu élargir mais le gis rek donc donc day commencer ci bien pour que nous nous consolider d'abord la base parce que su base bi dëgërul mais doo mën mais actuellement il bon ni y a des gens qui sont très dégourdis dans nekk association euh, donc on est prêt euh, mais aussi à accueillir euh, donc mais d'autres personnes donc pour vous dire aussi tamit association bi tamit comme nous nous koy rek mais nous wax voir ça ñu ci parce que nous naa nit ñu sensibiliser mais au niveau de la Médina bon on commence à avoir donc de petites cellules yoo xam donc euh, mais ñu ngi ñee entouré aussi ñu former aussi la même chose que l'association association mais benn kër mais ñu koy rafetlu le trop trop nag aussi tamit voilà. mais pour nga nous a def sa yenn action yi mais il faut de l'argent mais sans quoi donc tu peux pas le faire voilà donc euh, yàlla def nag mais on a une gestion très rigoureuse bon xam donc fait pour nous dugal bi rek quelque chose boo xam ne dañu toog ñu concerté ko et puis mu nekk loo xam aussi tamit si bi ak objectif association bi la bokk donc ñu fay dugal xaalis bi entre aider et la solidarité donc def naa loolu moom mooy doxal gox comme ni koy waxé rek le maire bu nekk ci benn gox mom mënul doxal action yépp donc ce sont ces genres d'associations et d'organisations yu nekk ci ay cellules ku ci nekk sa gox soo soko doxalee su yagge defe naa ni Dakar bi yépp donc maire bi sax jarul sax defe naa sax mi ñu koy woo mais en appoint voilà dafa am importance jamono bu ñuy dund ni. muy mëna a keneen keneen ñëpp ci bokk yem sunu dara matul mais dañuy démé sutura rek mais dimbalante bi amna solo surtout maanaam rawatina ci weer melni motax nii nga association buñ ko défé ñu dem ci mag ñi séti leen ñom ñonu tanal bëss bi bëss bi nga xamné du bëssu puukare bëssu promotion la bëssu lo lu def lo ci def rek suñu borom fay lako ko daf la koy triple donc bëssu promotion la donc ñun motax ñu tamu bëss bi ba nga xamné bu weeru koor la tu puukare du dara defu lu ko dara vraiment pour ñaanu suñu wayi dawle parce que ñëpp a ngi koy def seen kër. koo gis rek mu ngi koy def seen kër mais ñu ne noonu nañ jël benn bés def ko ci koñ bi ñëpp génn ñi ñi tuxu woon ñëw ñi sëyi woon ñëw ah ak booy yi nekk ci jasporaa bi ñëpp ñu sant que ñun ñëpp bokk ndey ak baay Médina Médina benn bopp la donc y a des valeurs yoo xam ne sa temps à disparaître donc lool il faut il faut il faut résister te ñun ci loolu la ñuy taxaw dimbalante vraiment te yàlla rek a tax nag ñu bañ ci gis nag suñu bopp day dimbalante rek duñ ci nganda ngandalu wala kii duñ ci gis suñu bopp mën naa ñëw secrétaire général def action sociale c'est lui le secrétaire général c'est ça la particularité de benn de façon symbolique ñu jàppale leen ci leneen action ñu ngi koy def encore ah ay Covid bi action taxul li nu am dañ xam ba pare ñu def euh, kii de sensibilisation dugg ci boutique yi ci atelier yi du leen ne joxe leen gel ne leen muuru sol masque feebar baa fi mais ça c'est des actions nobles c'est des actions nobles donc loolu rek moo nu tax a dara on est concurrencé wul Ken. doxuñu ci loolu donc ñun su on est des amis c'est une famille Ben kër une famille soo déggee la noonu leen dig ben kër ben kilifa mo fa nek ben mère fa nek ben sœur fa nek ben nijaay fa nek leneen donc lu ci mbedd bi topoto won ko ñun lu ci suñu biir kër loolu ñuy toppatoo comme niko tuba tubaab la leen sa sa salaam en famille donc ñun loolu la ñuy toppatoo donc di ñaan yalla nak ku ñu ci jàppale fekk suñu ñu jël jàppale nak dafa am parce que la ngay gis ni organisation bi yomul lu metti la parce que en tant que financier xamna li tax li may wax c'est un investissement lourd lourd bo xamné du ay 1000 francs moo koy régler social bi ñuy def ni du 1000 francs des fois on se cotise ñun pour mën a régler dimbali koko parce que yaakaar bi mu am ci benn kër bo ñew ci benn kër wax problème am rus nañ ko dello te wul ko on se cotise weeru koor la nekk li may wax ni gaay ngi taxaw on se cotise pour dimbali koko mu yaakaar ni loolu mi ngi te nekku fi donc nak y a des personnes yu ñuy jàppale euh, ki ci melni Cheikh euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba daf ñuy jàppale daf ñuy jàppale bu baax baax ki ci melni Cheikh Ahmed Tidiane sek ñeneen ak ñeneen ak ñeneen vraiment donc ñun xeebuñu dara ku ñu indil deureum ñu jël ku la ñu del lu jël parce que demul fenn fudul ci jaam yi demul fenn fudul ci koñ bi ak ñi ko ñi soxla loolu rek la donc ben kër nga nga ben keur euh li tax ñu bëgg mu law ci medina bi c'est très important parce que ñun neen la fi da nga daan wax ana malik te ya nga ya nga yaa nga ba malik si euh, ñu xam ne ne la kër malik ma nga ne mais ça tend à il y a des maisons yo xamne ne familiales yoo xam ne na grand place yi yi si des ay quelque la baretul mais nanu delloowaat suñu xel xam ne que ñun ñoo moom Médina ñoo ko mën a defaraat ñoo ko bokk ñoo ko mën a yëkkatiwaat defaraat